والقلم وما يسطرون asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi noo ngi leen nuyu di leen ziar di leen bal aq di leen bal aq gannaaw loolu compagnie Serigne Seck senegal mu am liggéey bu am solo boo xam ni indi na ko ci yaatalal mbindum alxuraan xam ngeen ni nag am na taxawaay bu am solo boo xam ni def na ko ci liggéey boobu fukki fan ci weeru avril 2022 mu war a tànn ay tout tànk yoo xam ne liggéey nañu liggéey bu am solo ci mbind mi ngir war a leen sargal ci grand théâtre loolu nag tax na bi liggéey boobu amee ba noppi am na ay yitte ju rëy yoo xam def nañ ko ci ngir delloo siwaat cosaan ngir mën dem wëri ko mag ñu baax ñi fi nekkoon ak liggéey yu am solo yi nga xam ni daan ko liggéey mu jëm ci biir alxuraanul karim naka noonu àlluwa yi xam ngeen ni képp kuy jàng alxuraan ci àlluwa ngay tàmbalee ba mokkal bind ci beq ci ñu soog laa jox kayit nga soog a mën a tàmbali mbindum kaamil loolu nag tax na ñu liggéey ci liggéey yu am solo ba nga xam ni képp koo gis da nga xam ni kon alxuraan jàng la waaye bindit mënta ñàkk loolu tax na it ànd nañ ak liggéey boobu ba liggéey ci liggéey yu am solo ci fan yi nga xamante ni si moo tolloog fukki fan ci weeru avril de ci Grand Théâtre naka noonu it loolu lañ fas yéene it wéyal ko ci liggéey bi ci fànn yëpp ba nga xam dana matale ci fànn yëpp loolu it tax na mag ñu baax ñi nga xam ne nekkoon jaaroon nañ te liggéey ay liggéey yu rëy ci biir liggéey boobu ñu mën cee tudd mag ñu baax ñu tedd ñu sell ñi ku ci mel ni Maam Mor Anta Sali lii ñu jàkkaar lool am mbindam la moo xam ni moom it moom moo ko bind naka noonu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul it mbindam mooy tomb ñaareel bi ñu jàkkaar lool ñu fas yéenee barkeelu naka ñooñu it suñ Moustapha Diop Massamba Xaridaam moom it liggéey na ci liggéey bu am solo ku mel ni Cheikh Mamadou Fadil moom it moo ci topp moom it xam ngeen ni ab kaamilam yaatu na lool ñu ngi koy gis ci fànn ci ci biir réew mi ba bitim réew ku ci mel ni maam Thierno borom daaru it moom it jàngale na bind na moo tax mbindam mi ngi fi ku mel ni sëriñ Abibu Mbàkke imaam moom it mbindam moom lañ jàkkaarloo nii. ba tey it ku ci mel ni sëriñ Fallou Mbàkke sëriñ Chouaïbou moom it teew na ci mbind moom am na ci liggéey bu am solo bu mu ci def ku ci mel ni sëriñ Abdoulaye Jaxate moom it nekkan ci kenn ci magi sëriñ bi moom it mbindam moom lañ jàkkaarloo nii ak ku ci mel ni sëriñ Chouaïbou Mbàkke radiya taala anhu wa nafaana barakaat yi ku ne xam ne ku sëddoon alxuraan la ku faso ku sosowoon alxuraan la ku ko fasowoon ku ci daan liggéey liggéey bu am solo taxawoon ci di jàng ak di bind ku ci mel ni it euh, sëriñ Issa Guèye moom it mbindam am na fi moom lañ jàkkaarloo nii ku ci mel ni sëriñ Cheikh Boussa Afé it moom it mbindam moom lañ jàkkaarloo nii naka noonu it mbindum sëriñ Issa Guèye moom it euh, am nañ ko fi moom ngeen jàkkaarloo mbindum sëñ Cheikh Boussa Afe moom it am na ci moom lañ jàkkaarloo nii mbindum Cheikh Massamba radiyallahu taala wa nafaana barakaati ku ne xam na ni ku farlu wal na ci bind moom it wax dëgg yàlla ma mushaf bii moom moo ko bind ci loxoom ak euh, Serigne Mbacke Kanni sa moom it alhamdulilahi rabbil alamin li ñuy barke jàkkaarloo nii moom moo ko bind. Serigne Abibullahi Mbacke moom it mbindam mi ngi fi moom ngeen jàkkaarloo nii. Serigne Diop Marème Madame. moom it mbindam moomu mi ngi noonu ñu jàkkaarlool sëñ Cheikh Jaxate Tindóodi moom it mbindam mi ngi jàkkaarlool lenn la ci mag ñi nga xam daan nañ bind alxuraan ku ku ci mel ni ba tey bu Bussa Imaam moom it mbindam mi ngi nii nekkoon ci mag ñi nga xam daan nañ jàng di ko bind di ko bind soxna May Mbàkke Kabir bintu Seexul Xadiim moom it xam ngeen ni mbind mi moom moo ko bind di sax bu rafet bu am solo boo xam ni ku ne xam na ni sëriñ bi yaroon na njaboot gi ci jàngal alxuraan waaye yemuñu woon ci jàng rek waaye dañu daan bind ba tax ñuy lii am sax la boo xam ni moom itam soxna May Kabir moom Cheikhul Khadim moom moo ko bind. naka noonu it mbindum sëriñ Amsatu Jaxate moom it mi ngi nii ñu jàkkaar lool mbind mu rafet mu am solo moo xam ni wax dëgg yàlla ku ko xool dëgg yàlla dina mat barkeelu sëkk sëkk sëkk sëkk ci mbind moo xam ni mu xippi la mu xool la waaye mu am solo la moom naka noonu it sëriñ Mamour Anta Sali ba tey moom it moom moo ko bind moom lañu jàkkaar lool nii di ay barkeelu yu am solo yoo xam ni. compagnie Serigne Seck Sénégal def na ci liggéey bu rëy ngir mën ko am ngir mën koo gaaral nit ñi bañ mën koo gis ba mën cee barkeelu xam ni alxuraan moom jàng la waaye bindit dañu mën a ñàkk ndax ala kulli xaalin wax day dem waaye mbind moom day des. naka noonu it jaafara yi xam ngeen ni ci jamono yi mag ñu baax ñi képp ku ci mës a bind alxuraan kaamil rawatina kaamil ba topp ko ba mu set ba mu rafet boo ko waree jébbal sa kilifa da nga daan wut jaafara defar ko ci ëw ko sulli ko dessin ko ba mu rafet wax dëgg yàlla nga soog koo yóbbu moom lañ leen di wanoon ci image bi nga xam ne kon alxuraan moom faw boo ko jàngee ba mokkal ko danga koy bind mbind mu rafet ñu topp ko defal ko ay defukaay yu am solo yu mucc yu am solo bokk na ci jaafar bi xatt ko defar ko ba mu rafet moom tamit moom nekk noonu ñu leen di won ginnaaw euh, kàddu yooyu ak leeral yooyu nga xam ne indi nañ ko mu jëmoon ci wàllu liggéey bi C3S mi ngi gërëm di sant mbooleem këri jullit yi ak mbooleem këri diine yi nga xam ni xataayu jamono ak tolluwaay bi tax na mënuñu foon a yegg waaye yéen ji ñu amoon mooy wër kilifay diine yëpp kër gu nekk ñu dem fekk fa mag ñi liggéey bu rëy ba nga xam ni liggéey nañ ko ci alxuraan mu jëm ci wàllu mbind ñu andi ko mën ko won mboolem jullit yi ni ci biir réew mi ak waa bitim réew waaye nag kon dañ leen jox dig daje mel ne at mi ñu jublu allah yàlla nañ ko fekke ak jàmm te tal ko bañ mën a yaatal suñu mébét ak suñu yéene ci kilifay diine yëpp ak liggéey alxuraan ba mu gën a mën a yaatu ci fànn yëpp di sant di leen gërëm di leen wax rek wa kullu amin